salaamaaleykum mbokki internet yi tey ñoo ngi fii ci Daaru Marnaan ci seen émission jàng ak jàngale seen site internet 24actu point com ñëwoon seet si fii Sayda Khady Ndiaye fas yéene dugg ak moom ci waxtaanu li nga xam ne mooy jàng ak jàngale ak nu mu nekkee xale yi ak njàng mi fi ñu toll nii nu mu demee su ko defee ngeen topp ñu rek ma ànd sama caméraman seexu naa ñu dugg ci biir xool soxna Xadi waxtaan ak moom ak mbokkam ak i dëkkandoom ba xam nan la ñuy dundee njàng mi ak njàngale mi ci fii ci Daaru Marnaan ci Pàkk Xel. alladi allama شكرا لك علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu yonent yàlla bu tedd bi dafa wax ne in tàq suluma ragal leen tooñ fa in na suluma ndaxte tooñ sulumaati ay lëndëm la yowmal xiyaamat sa bisu taxawaay bi soxna Xadi na nga def maa ngi soxna Khady Ndiaye fan la commencé am njàngam. waaw soxna Ndeye suñu njàng moom ñu ko commencé fii ci Touba euh, Daaru Xuddoos ginnaaw bi nga xamante ne nii jàng nañ ci ay école yu ndaw yu bari ñu ngi jànge foofu ci penc bi mu Daaru Xuddoos ci wetu mbaar mi ci école suñu Cheikh Gaynde Fatma bi ñu jógee foofu ñu ngi dem Diourbel foofu lañu eggalee suñu njàng ban at nga sos li nga xam ne mooy école bi waaye ecole bi ñu ngi ko sos février 2007 lañ ko sos ci ndigalu suñu borom kër école bi nan la tudd. école bi mi ngi tudd Mame Thierno Mbacke. école mi ngi tudd école Mame Thierno Mbacke. Ibrahima Ibrahima Mbacke. soxna Khady jafe-jafe njàng mi fi mu toll nii sa diggante ak parents yi ak diggante ak élèves yi jamono ji ñu toll ak. xat-xati njàng ne jafe-jafe yi nan nga koy dundee. waaw jamono ji ñu toll moom parents yi it euh, bari na ci ñoo xam ne ay jàmbaar lañ trop wax dëgg ñu ngi si jàpp wante bu fekkonte ne gën nañoo jàppaat daal moom dañuy dollee sant ndax euh, école bi moom wax dëgg mën naa ne daanaka sama borom kër moo ci gën a jàpp moom wax dëgg yàlla ndax bu ko yàlla dogalee moo ko ubbi moo ma ko ubbil may jàngale léegi nag parents yi nag moom buñ ci gënoon a mën a jàpp dañ leen a fii daal bu baax a baax a baax. jafe-jafe yi ci wàllum maanaam xale yi seenu sol nu muy demee dañu leen di defal blouse yoo xam ne si yow sa blouse yi bopp la. waaw yàlla dafa dogal na dañu leen defal ay blouse wante sol gi moom wax dëgg moom ni bëggee woon ñu koy solee noonu moom solee ñu dañoo bëggoon saa ba ñuy jàng ñun ñëpp ñu soloon solandoo blouse yi. wante comme ni ñu ko bëggee woon moom tàmbaliment ba moom doon nañu ko def mais jamono ji ñuy wax ni ak yow nii boo xoolee école bi sax daanaka ñu sol ay blouse sax bëri ci jàngale fi Touba ndax njàngale bi yomb na wala yombul dëgg ci jamono ji fi ci Touba moom métti na ndax euh, bu fekkonte ne moom parents yi moom gën nañu ciy jàppale daal ci euh, élèves yi moom dina dina gën a baax ndax moom wàllum fay meeg yooyu yëpp day xaw a sooxe lool day xaw a sooxe ba ci ba ci élèves yi nii ngay gis euh, comme ça bu doon doon jëndloo ay adawaar sax adawaar yooyu dafay des lu bare bari te loolu moo ñu mën a jàppale ci njàngale mi bu baax te dangay jëndloo ay adawaar ñuy laaj ba xam lan moo ci gën a am njariñ ak lan moo ci gën a am njariñ te liñ bind lépp war nañ koo mën a dañ jàng bu ñu sañoon lépp lu ñu bind moom dañu koy jënd léegi nag bu ñuy jënd na ñoom dañuy jënd lii bàyyi am na ci ñoo xam ne sax duñ ci jënd benn te loolu jafe-jafe doon wax parents yi wala ngay wax ñi nga xam ne ñooy bonne volonté yi nga xam ne dañoo mën a jàpp ci njàng ak di ñu jàpp lan ngay wax ñu gën ñu koo mën a jàppale ci wàllum njàng mi barab boo xamante ni bu gën a yaatu bii daal bëggoon nañ ko lool wax dëgg ndax fii moom dafay barab boo xam suñu borom kër moo ko moom ubbil ñu bi am ci yeneen lool ngir ñu jàngale wante buñ mënoon a am faneen fu gën a yaat it ba tey dina baax ba tey it euh, ban yi mhm. ban ay ban moom lu ñu manqué la mhm. boo xoolee école bi daanaka daaw rek matul ñaar asta la ñu wutoon ay ban xale yi damm nañ ko mhm. euh, te léeg-léeg doo gis benn parent buy dikk yi sax dina jàppale ci loolu te lépp suñu borom kër rek moo ñu ci jàppale ma. ndax euh, boo defoon ay cotisation lu mel ni maanaam ñoom ñu dimbalante ci seen biir ku nekk indi nangam. ñu war koo mën a daaje ay ban loo xam ne dinañ ci toog. ndax loolu du gën am loolu mos nga koo def wala mosoo koo def. loolu mos nañ koo def mhm. euh, at rek lay tolloo wala at ak lu tey def nañ ko mais bi ñu ko defee. Mhm. ñeen lenn ay parents joxe nañu wante ñëpp. am na ci ñoo xam ne ba léegi joxewuñ mhm. léegi loolu ci lañ defaroon ay banc lu tolloo fukki banc euh, wala lu tegal ñuy teg ko fii wante xale xam nga ay xale moom ñu dammate yëpp ba tax na fi ne may wax yow nii daanaka banc yi moom bariwul daal taxu ko bari noonu ñu amee fu ñu jàppale ba ni ñu bàyyee lépp jàngalekat bi daal noo ko dundee nga xam ni dañoo waxoon booy jàng tey ñun suñuy temps comme ça boo jàngee boo demee parent bi da ciy jàpp ci yar bi ak lépp waaye tey dañoo gis ni dangay wàcc rek loo def noom yaa xam ñu ne baal ba ma gis yaa sayda rek wax ko ko loolu ndax yaa ngi koy dund fii yow. waaw bu baax ñu ngi koy dund moom wax dëgg ndaxte dangay eh, bëgg a yar sa xale bi fii ci école bi te bu ñu génnee dem kër ga. duñ leen xool ba xam ni ñuy doxalee yooyu bu ko defee lépp loo yendoo defar bu ngoonee bu ñu wàccee ñu yàq ko te loolu duurul ndaxte école bi rek muurta yar dañoo war a jàpp ci kër ga it ci yar bi di jàpp it ci njàng mi ci kër ga loolu lépp lañ ci war di jàpp ndax leçon école lañ ko jëlee kër ga la jàngee pour mokkal soo suñu ñëwee kër ga duñ leen bàyyi xel pour ñuy jàng seen leçon yooyu yëpp te loolu lépp dañ ciy war di jàpp ak yar bi it kon soxna Xadi yaakaar naa émission bi li ci def cate na euh, léegi bu ñu kiyee sa boroom kër mi ngi fi nekku fi wante bo rakkam moo fi nekk ah rakkam moo fi nekk léegi xam naa bu ñu génnee comme boroom këram am na kum fii pour mu def ay seede ci moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ci école bi lool ni muy taxawoo xale yi ni muy leen di jàngale am na ci passeef lool li ci gën a li ci gën a tee gën a gën a gën a tee am solo mooy yar bi ndax xëy na man maa ne si kër gi xëy na borom këram néew fi waaye man maa ne si kër gi waaw ndax da leen di jàngal ba pare wëlbatiku di leen yar yar boo xamante ne si ja xam naa ko bu baax a baax a baax ci jàpp ci yar boo xamante ne si ba mu fi néewagul noonu ni ma ci daan sonne di euh, wàññil na ma coono bi bu baax a baax a baax a baax. waaw soxna Khady diggante ma xale yi boo ñu ko laajee danañ la ci wax preuve yu leen lañ parce que soxna Khady mi ngi nekk ci pàkk Xelkom yoro fi daara joo xam ne nii ah daara ji nekk na daara joo xam ne nii ah bu loon ci français mën a daara ji. professeur sax mënu koo yore waaye na soxna si nekk na koo xam ne nii mën naa accueillir mag waxamtuma gone uuf na xale yi ah, accueillir na xale yi mbooloo loo xam ne nii rek alxuraan suñu borom mi ngi ko wàccee ci àddina rek lu ci man lépp rek mi ngi koy def ci boppu xale yi xale yi xale yi tuuti lañu xamuñu dara ñu ngi bàyyi seen parent yi ñu bàyyi leen ñuy nelaw ñu ñëw jox leen ko soxna Xadi du wonk du jooy du jàmbat. depuis ba ma ko joxee sama doom ba léegi nag sama xol sedd na ci moom ndax tubarkàlla mi ngi ci diine ak lislaam ak bëgg lu baax di moytu lu bon soxna Xadi Njaay di ku baax nag ku am yar ku am lislaam ku bëgg ay dëkkandoo koo xam ne sax nag macha allah li may wax xale yi dana ne ci école bi nga nekk sa kër din la waxuma la dara waaye feetu tabaski gi bi mu ñëwee ku ne danga yàkkamti sax xale delluwaat place ba jàngi. bu weer wi dee wóor na Serigne fàllu Mbacke yow da nga koy romb di demee nu la neex ba heure bu la neexee nga ñëw fay ko weer mu bàyyi lépp ci biir ak dëkkandoo ak rus ñu. ma xale yi di wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yiw ku am sutura. ku am teggin loolu moom waa bépp mën nañ koo seede ci moom muy nit ku baax nag ku dal yar xale yi ci lislaam bu waxtu julli jotee sax man mi jàkkaarloog moom damay gis mu xam ne xale yi nañ jàpp ci julli sama àqulaay laay wax. Mhm. na mhm. ko mënuñu na. ñu góorgóorlu dégg soxna maam jaara nee na ngeen góorgóorlu di fay jàppale soxna xadi ci école bi. ndax jàpp leen lay doon baax ci seen njàng. nit ki dina jàng ba xam-xàmmee te du ko fonk waaye moom dafa xa jàng xam-xàmmee ba pare fonk diine fonk lislaam ndax man mii nga xam ne rakk laa ci borom këram léeg ma xëy wàcc sonn ñu noddu ma bin bin la waaye moom du ko ci fekk fajar sax boo yeexee moom mooy njëkk a jóg moo lay yee yee xale yi gone xale yëpp ñu julli. li gën a am importance mu yar ndax sama papa daana wax naan boo amee yar taxaw ci bunt. lu yàgg-yàgg dañ la ubbil bunt waaye nag ku yaru loo yor yaa ko moom waaye nag ku def na nee nit loo yor moomu ko yàgg-yàgg rek ku yaru moo koy jël fa kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko fi yàlla saxal suñu xol daal sedd na en tout cas ñun xale yi sax ñun ñi nga xam ne ñooy seen parents xale ñi ngi ñuy waxal loo xam ne nii ak di ñu jàngal loo xam ne nii ñun ñi nga xam ne ñuy ñooy ñooy seen ndey ak di seen baay ñun xamuñu ko woon ci wàllu alxuraan. sant naa ko lool ba fa kanam yàlla ak yonante bi. kon xarit daal suñu borom rek lañ ko bàyyi ak maam Thierno. mi nga xamante ni gëmul nelawut te lépp loo def gis na ko yaa ñu ngi koy bàyyi ak suñu borom rek mu defal ko li mu bëgg ak borom école bi mu tuddee école bi maam na mi ñu yaakaar. ñoo ngi ñaanal nag sëriñam bu baax bi yàlla na yàgg moom te ci barke Sëriñ Fall. ñoo wax 40 pour cent ci ci njàng mi njàngum nasaraan waaye gisuñu ko ci gisuñu ko ci daara yi gisuñu ko ci école arabe yi kon ñoom lu ñu def kon kon seen euh, kon nasaraan bi lañu la fonk waaye fonkuñu lislaam bi waaw parce que bu ñu fonkoon diine lislaam bi dañu dañuy jël li li ñuy def ci nasaraan dañ koy jël di ko dimbalewaatee ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy jàng alxuraan ak di ñuy jàng arab waaye dafa defaru leen noonu ñuy dimbalee eh, nasaraan nekk bu ñu ko doon dimbalee doomi daal yi kon defe naa kon réew mi dana gën a dox na moom euh, léeg dana ci am parents yoo xam ni danañ am passé fu am sawarte ci jàngale ci njàng mi euh, bëgg nañ ko lool it ndax kenn ku ci nekk ndax fii ñiy jàng fii ci école bi ñëpp kenn ku ci nekk sa parent xam na ni ngay jàng ndax maam xarit taxawu na leen te na mu na mu leen war a taxaw yëpp taxaw na ko ba mu mat waaw mi ngi koy def ni mu ni mu waree te ñoom ñii yëpp xam nañ ko ki ci ñi ci koñ bi ñëpp saa yu toogee fi wootee fii ñoom ñëpp xam nañ li nga xam ne noonu la leen téyelee seen doom waaye nag euh, man-man dafay am ak koo xam ni dafay xaw a tële waaw loolu du càggante ni pour xëy na dañ koo bañ mhm. ndax ku ko bañ doo jël sa doom di ko yóbbu ci daara te boo xoolee ne xëy na danañ fay benn weer ñaari weer léegi daal di am tak-tak ci diggante bi kon nga xam ne noog ay tolof-tolof rek moo leen jàpp Ah, noonu lañ koy jàppale yi nga xam ne dégg nañ ko fi tamit mu neex a dégg lool ci sa mbokkum jàngalekat ah, joxe nañ kàdduy sant ak kàdduy euh, ngërëm ci góor góorloom ak farlu goo xam ne am na ko ci xale yi kon seen émission ñu daal di ko yemale fii rek daal di joxanteeg soxna Xadi ay kàddu yoo xam ne kàdduy tàggatoo lay doon bu ma sama baay jàngale it yàlla bëggoon a lii ci man te mënu koo am yàlla dogalee ma ñëw ci ay loxoom la ma jàppale ci lii mu am kon nag moom yaakaar naa ne mën nañ ne lu ñuy njaag mooy njaag ñu koy ñaanal bu baax fan bu gudd bu ànd ak wér dund ba di ko ko fay ak njabootam yépp di ko ñaanal mboolem ñi nga xamante ne nii wax nañ ci wax ju rafet ji wax dëgg di leen sant di leen gërëm di la sant loolu yow it nag wax dëgg macha allah. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon liñ naan rek talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam daal euh, farata ci góor ak jigéen waaye tey soxna Xadi wane na ko kon jaa ngeen jëf. jaa ngeen jëf asalaamaaleykum. boo tee jëm si diine be polo sa kër laa guy jeex àdduna ba neex baatam néew na toolub lislaam yaatu na ku sawar ya faatu na ku fàtte ba mel saaku na kër laa bu xattaam na mu gën yaatam neex dina waajal ka mu war na jëf ju baax mu lay ngel